yàlla daf ñuy gis yàlla xam nañu yàlla mi ngi ñuy xool bàyyi loolu xel yow sama jigéen bàyyi ko xel dafa am benn jigéen dafa xuloog jëkkër ji xuloo yu bari fi mu dëkk d'abord su ma ko doon misaal dama naan comme ci ñun rek néegu baraag la ndaw si fi mu sey si néeg bi da koo xeeb lal bi da koo xeeb saa bu duggee du gis boppam ci néeg bi xam naa bëggoon na néeg bu mel ni panaal loolu la bëgg xëy na yàlla maye ko loolu chaque jour mu xuloog jëkkër ji te am nañ ñetti doom mi ngi am doom ji muy nàmpal mu toog ba ci ne day fay bàyyi ba diggu guddi nee na bu génnee bëccëg bu ko mbokkam yi gisee peut-être dañ koy téye mu bàyyi ba guddi ba jëkkër ji nelaw mu rocc ku génn bàyyi néeg bi mu génnee bàyyi néeg bi ne ñaadam ñaadam dox dox ba ci kanam fi mu taxaw di làqu ndeke yem na ci palanteer boo xamante ni xale bu jigéen ba fa nekk mi ngi tàllal yàlla loxo naan ko ëy yàlla sama yaay day toppatoo na ma defal na ma ma nga ci yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ko ajjana faalewu ma or faalewu ma xaalis faalewu ma jëkkër man sama yaay dem ajjana rek laa bëgg ndaw si rocc ko ci beneen côté taxawaat déggaat benn jigéen bu naan jëkkër ji naa ko nijaay paa bi ñëwoon na fi de dinañ ñu génn de fi na ne nii borul yaas bi bëri na de amee nañ ko juróomi weer jëkkër ji naa ko nañu muñ rek yàlla ñu nattu waa ji tàng na waaye bu ñëwee ñu waxtaan ak moom ndaw si déggaat loolu ndeysaan doxaat ba ci yàgg dégg benn jigéen boo xamante ni mi ngi naan jëkkër ji kaay ma bës la sa tànk yi day metti di bës jëkkër ji ñeenteel bi bokk ci li ko gën a yéem ñeenteel bi mu ngi dégg benn jigéen boo xam ne mi ngi naan yàlla sëy naa fukki at ak juróom aw ma doom sama jëkkër liggéey na ay at amul dépense noonu la ñuy nekkee bis bu nekk suñu añee tey du ñu reer suñu reeree du ñu ndékki waaye yàlla danaa jàpp ndax sama way jur noonu na ma naa muñ noonu na ma naa muñ ndaw si dégg la ba jàgg na ah yaa problème nag yaa problème tourné yedd boppam di waaxuwaat yem ci benn palanteer dégg ndeysaan benn jigéen mi ngi toog di wax jëkkër ji naan ko nijaay àdduna kan moo ci gën a heureuse nijaay ji naan ko man naa ñu ngi seen néeg di fo kan moo gën a heureuse ci àdduna bi ku gën a kontaan nijaay ji naan ko man mu ne ko lu tax nga kontaan mu ne ko noo fonde bi daqaar bee saf fonde bi daqaar bee saf te moom ndaw si fonde lay kaas ci jëkkër ji xoola kii nee na moo gën a neex dund ci kaw suuf fonde bu ñu daqaar lay bàkkoo allahu akbar <laughs> ndaw si tourné ñëw toog ba ci yàgg ne su ma demee ñàkk jom ñii ma romb ñëpp tanewuñ ma situation kon naa del si toog te muñ ma di la fàttali jigéen muñal amul ci àdduna eseel booy jaar lu dul muñ mbëggeel mënul sax mënul continuer xam nga lu des gore nangu jaamu yàlla xaar àjjana ku dugg àjjana muñ moo la fa dugal moo tax waa àjjana bu ñu duggee xam nga lu leen malaaka yi teeroo salaamun aleykum bi ma sabartum yàlla na ngeen am jàmm wa nima uqba gis nga ku dul muñ doo am kër gu neex la bu la bu sa yoon nekk ci lal bu rafet loolu xoolal pour fii la dafay dabe lal day dabe néeg bu rafet day dabe kër gu rafet day dabe xam nga lan mooy saadatu dunia mooy al imaanu billah imaan mooy saada yow jigéen bi jamono bi nga amee ngëm kenn gënulaa yaatu néeg sa néeg yaatu na lool ndax boo jógee kàbbar julli nekk ci sutura jigéen ñaari sutura la am néegu jëkkëram ak bàmmeel amul beneen soo génnee sa kër jëkkër ndax mer xawwi nga sa sutura koo dajal mu ne la muñal muñal muñal nooy def kon jarul dem toogal xaar fi dee te wallahi ku yàgg ci teen baag fekk la fa say doom sëyal ngir yàlla yàlla barkee la leen bul nangu seytaane dalay nax dalay yàqal sa jëkkër dafa tàng dafa soof dafa nangam déedéet toogal nga muñ wallahi wallahi kudul dul muñ doo muñ yàlla nañu yàlla may ñu nekk muñkat wa sallallahu sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain